Lele léeg gox wa waa Pikine bëgg nañ dem euh, université institut donc ñu créer ay terminus yo xamanteni ak ay destination yo xamni dana doomu Pikine fep fu mu nek bu bëggee dem dana dem ci jàmm delu ci Lolo lolu bokko na ci suñu ay mbëbët ñu né environnement bi environnement bi ñu né moy dig bi moy bassin bi ay problème la mais environnement aussi moy ay garab malheureusement espèce amatu fi fu ñu mëna samp euh, jëmbati garab mais ngalawaay lañ dese si digg bi ak ci bassin bi nañ ko toppatoo digg bi mangrove ba fa nekk am na ñu koy toppatoo yooyu mën na jëriñ Pikine ba fu waaye toll dana bëgg dem Pikine ndax micro climat ba fay nekk bassin bi mën nañ ko defaraat lañ soxla ci yenn infrastructure yi mën nañ ko rembler aménager ko def fa kii mais las des mën nañ ko def genre air protégé air protégé moo xam ni bërëb boo xam ne dañ koy sàmm yi nga xamni li ñuy wax faune ak flore manam yenn gantax yi ak yenn mala yi danañ fa mëna dundat kenn du fa ñeme def lenn ba mëna dem sa ba Pikine touristes yi dañuy joggé fu ne di ñëw ngir diko ko visiter loolu dana indil Pikine kom kom ñu né encore way way lutax duñu defalal marché comme jigéen ñi mënu ñoo baña dem marché yow nga am dépense 1000 francs nga war ci jël 100 francs bus aller 100 francs retour mu nek 200 nga dese 800 francs té bo waron paré midi pour say dom jangi bala ngay joggé téñi gène bay dellu ci midi jot bala ngay tal wala tax duñu défal marché suñu jigéen yi di yam fi baña a demati tëj ngeen loolu aussi ci ay priorité lo xamni Pikine da ko wara am mëno am 80000 personnes ngar leen pour ngeen dugg il faut ngeen dem marché téñi gène c'est pas normal benen bi ñu ne mais suñu xalé yi war nañ am fuñu fubalé war nañ am ay centre yo xamni lélé buñu bëggé waxtaan buñu bëggé dañ def lén xalé yu jigéen yi fi def réception ko ci def ku ne

mais dama ne looloo tax pacte bu taxawee ànd ak waa Pikine mën na soqali Pikine ba mu jëriñ askan bi yëpp waaye ma ne jafe-jafe yi lu muy rëy rëy rëy rëy am na loo xam ne bu ñu ko defee rek mën nañ cee génn mooy la benn lépp loo xam ne dañuy féewale ñu moytu ko bu ñu booloowee jappo yéenante jam kep ku ñu bëggalul Pikine avancement bo ñëw do mëna am ndam waye mané ne bu ñu engagé wo mak, ak aussi yar ak xalé déggal mak xamni Pikine rek moñu bolé lèr na ma lèr fi lek at yu neew dinañ wax ni Pikine changé na lool motax mané li rek war nañu tax ñun ñëpp ñu lañ jappone fàtte lañ doon ngir intérêt Pikine loolu moo tax suñ doom yi bu ñëwee ëllëg ci génération yi ñëwi danañ xam ne ndeke ñu doon xeex 1970 80 ba 2020 bi ndeke ñoom ñu ngi doon xeex ngir ñoom bu ñëwee ñu fekk fi dëkkuwaay bu mucc ay boo xamante ni danañ ah ndeke suñu gars yi kat suñu papa yeeg suñu maam yi am na lu ñu liggéey waaye nekkuñu woon fii rek di jënd ceebu jën bu neex fàtte ñu loolu moo tax ñu ne pacte boobu buñ ko ci jappalé ak engagement bi wax ak discipline bi leer nañ leer Pikine dana développer ci at yu néew donc ci lolu pacte nena, moy Pikine en action pour la citoyenneté le travail et l'émergence ci wolof mo wolof baax mais grand moo doon nan moy mooy coloré maanaam boo pacte bi rek nonu rek ci tubaab nga né pacte rek du fekk sax dafa euh, ki tassoko manam moy lim wax manam dañu bëgg fasante couleur ak pikinois yi parce que ñu bëre dañu wax ni gaay lélé amna na lu tax ñi amna luñu nyu bëgg ñi naan ñi am fuñu bëgg dem bëgguñu dara lañ bëgg moy ne Pikine dem mais comme faaw toujours am ku jité wax ji ñun yalla nattoo ji rek ñu jité wax ji. di leen nuyu di gërëm ci téway bi la presse aujourd'hui sans vous tay ji sunu kaddu mënul ag fenn fi donc ñu ngi leen di remercier. di am mbégte ak baneex si ñi nga xam ne taxaw nañu fii di doomu Pikine yi nga xam ne jóg nañu sunu ay mag sunu ay tante sunu ay rakk sunu ay nijaay ñu fi ñëw tey pour dooleel nu donte ñoom yàgg nañu xeex mais seen xeex xam naa ni def nañ ci lanu mënoon tey jii ñun ñoo aaye ñoo xam ne tey ñun ñoo jël sunu destin en maanaam sunu ëllëg ak sunu ay ëllëgu njaboot tey moo tax ñuy xeex di wax ni nag. kaddu gi nga xamni dañ ko doon waxe ci turu pikin te doomu pikin dawnu yek dawnu tin lolou jeexna tay tey pacte no, na ngir taxawal bopam ngir waxal bopam ngir jëmmal bopam ngir doxal bopam donc dañu bëgg lolou mu leer te dañu yag di di di di neewal doole jak no jox fayda ba fan yi amna projet bo xamni ne promovie la tudd defal nañu yenn quartier ci ndar goudron pigen amako ñuy laaj monsieur le maire mu tontu nu lan moo tax Pikine ak lu tax mu ñàkkal fayda Pikine ba Pikine boole ko si si projet boobu nee na aussi def na fukk milliards ak juróom ak nu mu baree nee na def na ko si Pikine pour assainissement bi te loolu tegunu si bët nanu wax xaalis boobu fan la ko dugal fan la ko suul ci ban boor la ko jaarale ba xaalis boobu dugg ci waa Pikine yëgunu ko di ko wax ni tey taxaw nanu ngir jëmmal Pikine dolel pikin kaddu gi nga xamni ñu ngi doon waxe ci tur pikin nan ko bayyi bu ñuy ci nanu ñëw fi wo doomu pikin yi ñu waxtaan ak ñom ba jubo parce que boy def mbir te wo ci ñi nga xamni ñoy ndey mbili ji moy li ngay def da nga def contre ñom donc dal ci teunk tay ñu leen wax ne pacte judd coordinateur bi moy ki doon wax sunu jigeen ñi ak sunu mag ñi nga xamni ñu ngi fi di nu dooleel ñu ngi leen di jaajeufal ci sen teway di remercier la presse jërë ngeen ñu